gën a gën koo jàpp gën a góorgóorlu te di am ndam rek ñu ñaan ñu nekk di am ndam rek si kanam. di bi yëpp ñu ñu ñu koy ñaari kër sax li nga bëgg ak Modou Lo te bombardé fu mu nekk ñu ma daan ba pare kay kooku. mu ngi mel ni ngay wax ñoo xamante mosuma leen daan ma lay dina ñu ma daan dafay am problème li bon ñoo xamante mosuma bëri ñoom mosuma leen daan mosuma leen def mais daan ba pare c'est pas la donc loolu a bëre ku ma jox moo moom ma bëri moom parce que yàlla moo fi teg waaw dëgg la waaye koo xalaat yow si sa a ah lamb dafa yaatu waaw waaw ku ñëw rek baax na non pare naa ku ñëw baax na jërëjëf kon sa fan si tey nag Banjul kon ni ma ko daan defee jo ko mutani Banjul Mali kini bisau gambi tout manyu ngi gis yagi may gis yagi may gis la ñëwal ta rabara bara gi dara rabara bara bara gi dara mata gi gin mata gi gin mata gi gin elen Balla basa basa basa basa Balla Gaye kaay Balla Adam micro bi laa koy jox nag heuram jot na nan ko jox micro bi mu waxan mu waxanteeg jor ñi lu nu mën a dégg waaw Balla Gaye mu ngi noonu taxaw bala micro bi dend ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy fans club Balla Gaye ci Gambia grand Pape mu ngi noonu et eh, staff bi ñëw leen staff Balla Gaye grand Tafando tout monde asseyez-vous ak ñi mu àndal eh, xoolal yéen ñaar man du ma seen moroom da ngeen a réew bu ma wootee da ngeen di ñëw wuy si ma. ndeysaan ci biir loolu. saa kees woowuma la. daaray Lamp Fall damaa bëgg ndeysaan. ban egg Sénégal. nawet saf bi ñëw. bu ñu paree jàkkaarloog Balla Gaye. Balla Gaye de say fan si góor a ji jigéen a ngi noonu. ndax ndaw lay tax nga xam koy woon dina am ñu ne woon du am bi mu amee danoo am gàcce macha allah ñun àndandoo bëgg Balla Gaye xam ne moom la fi yàlla teg. wasalaam micro bi. asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu kenn ku nekk turam ak santam di leen masawu coono bu baax a baax a baax a baax yéen ñi fi teew ndax yaakaar naa ne yéen boo leen teewlu woon li du am mais rawatina aussi tamit fans club bi franchement sonn nañ ci affaire bi torop torop torop maa ngi leen di remercier bu baax ku ci mel ni Taba Ndoye moom mooy président club bi. koy ziar bu baax a baax ak équipe am. ku ci mel ni Modou Fall Ousmane Modou Faye damaa juum <laughs> ak Tafa Ndoye ah Pape Ndoye ah Modou Diagne ak Modou Gueye Assane Gueye Ousmane Sow ak Bass ak Rama ak Bassirou Gueye ak maire Awo Bédio Diouf di gërëm fans club yëpp ñu fi teew gërëm fans club Balla Gaye numéro ba pare ak policiers yi vraiment sonn nañu trop ak fans club Modou yëpp di ko jiite di Pape Diouf ñu nuyu bu baax di rafetlu affaire bii mu def ak fans club Eumeu Sène Tapha Tine gars ba pare seen fans yëpp maa leen di béggee ah bu baax daal alhamdulilah di kontaan ci ñëpp di leen jégalu di leen masawu coono di gërëm Yaya Jammeh président kon ñu gërëm bu baax a baax a baax a baax baax waaw cëpp koy gërëm di gërëm aussi tamit Kumba Pata di gërëm fan vraiment kontaan nañ mel ni jëf cël cartouche boy naa saa Baye Sokosim Youssou Lamine Golo Baye Mandiaye commissaire Tafa Buuju Mass Boga ak Issa Fall ak monsieur Ndour ak suma turandoo Balla Gaye ñoom ñëpp ak njaay saasona vraiment kontaan nañ trop ci ñoom groupe Mame Cheikh Fall ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen ziar bu baax a baaxa a baax a baax. ak journaliste yi fi teew. ak mbëru Gàmbi yëpp ñu ngi leen di ziar di leen gërëm kontaan nañ waa bëggee bu baax forever. t'inquiète pas merci di gërëm waa gàmb yëpp. waa ndeysaan ci biir loolu Modou Faye Tapha Ndoye dama bëgg ndeysaan dañoo bëgg a jàkkaarloog Balla Gaye ak yéen ñi fans club fépp ndax ndaw lay koy togg ca waañ wa ak soosog Balla Gaye te ñu koy bëggee <laughs> Adama Ngom vraiment ñu ngi lay gërëm bu baax ndeysaan franchement kontaan nañ ci yow tey ak suba ak gannaaw suba ndax ku baax nga ku ñu dem nga ànd ak bàyyi su yëpp kon ñoo lay sant bu baax di la gërëm tey ak suba mënuñu laa fay bu ñu nee mënuñu laa fay waxuñu dëgg di gërëm jal bi yaa ko bu baaxa a baax a baax a baax di leen gërëm ci tamit gars ma fekk fii Balla bu baax kontaan naa waa maam Cheikh Balla ci biir loolu bëggee forever Balla ci biir loolu ñu nit dañ lay bëggee jërëjëf ma bëgg nag ndeysaan dañuy jàkkaarloog ki nga xamne moy mooy Balla ak fans club bi yépp ndax dañoo nekk gambi fi jërëjëf di fans club bu Gambia bi and ak sama grand Adama Ngom mu lay tegi te jige diw la kon boo ñëwee ndeysaan ñaari fan yépp ñu nekk fi dinañ jàkkaarloog yow mi nga xamne Serigne Touba nga di tali Serigne basirou Bara dan ñun amuñu luddul Serigne Touba kon Balla nag nga bëgg sa te ku bëgg sa ku ne lay bëgg yow ca kanam ca kaw ca kanam kon Balla li ñuy wax yaa ko moom ak fans club bi yëpp ndeysaan loolu la maam Cheikh la wuy Balla ma ca góor ga bi yow la looloo saala jaliya affaire bi yow yow affaire bi yow la moom la ala bi jiw góor gi saala jëriye wa ma tafaando ay affaire bi moom la wolo affaire bi yow la doomu ndeyu Sathiès affaire bi yow la ala bi jiw góor gi saala jëriye affaire bi yow la affaire bi yow la la la wo affaire bi moom la jaliya doomu ndayu booy naar affaire bi yow laa ba ñëw saalum ñetti néeg la ñeenteel ba ca waañ ba ca xaalu ñu neew le fekk leen ca añ ba ñëpp di ay naw le xame ca tax bay la min daara bindal naa may téere Gambia we are the Keur family ñetti boo yu gàtt yi. borom bopp yu tàcc yi. borom xel yu màcc yi. ñoo ngi xàcc ni bëgg a dóor yi. Hey Gambia watch for Soft Connect. every Wednesday on GRTS. from 9 p.m. to Larawee. Kotko Sunday. from 11 a.m. but 12 p.m. Soft Connect may I bring your child.